Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. waaye bu dugg day ndew ay xeer ay xeer lay ko yaa ngi yàq jeex bi waaw ay xeer wuy xale Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.